moom nag xam naa ne moom Balla moom bokk na ci Cheikh Cheikh ci loo ne. maa ngi lay maa am nga jàmm. maa ngi sant bu wér a wér. mais Cheikh su ma la laajoon sa digganteeg Balla depuis kañ la loo may wax. non loolu yàgg na. Ah? loolu moom yàgg na. parce que ku ñëw kër Balla daf la fi fekk. waaw ah, mais noonu la noonu la ay nit bu ñuy ànd dañoo war a dëggu waaw saa su ne su nit ñëwee fekk la fi loolu mooy jàmm ji daal. tey ngeen am combat revanche boo xam ne yéen a koy bëre ak Tapha Tine Tapha ngeen bëre woon ngeen daanoon ko mais ñu gis na jamono ji dafa ne ci dynamique bu doy war tay tay nak ngeen fas yéene mom ak actuellement bu ci kanamé non ñun jappu ñu ne loolu revanche la. do revanche non non ñun duñu nak mom ay revanche ni ñun Tapha sax taxu ñoo jog empereur bi ñi yo sax taxu ñoo jóg. ñun balagé dafa am lu ñu dig ba tax ñu top ko nii. bàyyiwuñu ko bobu ba moy lan ñu roi bi lañ soxla. dinañ jël empereur bi dem jël roi bi. Ah, roi de arènes ngeen bëgg jëli wa Serigne Touba Balla da koy jëlat bu du dëggalee boppam taxaw ñun du ñun a kii ñun kii daan nañ ko ba pare ñun kii taxu ñoo jóg parce que nit koo xamante ne boo taxawee àdduna di la seetaan ngaan man gisuma kon yow li ñu la fay lu muy jëriñ man gisuma ñu lay tàllal loxo nga ne gisoo kon xanaa buñ ñëwaatee da ngay gumba maa day gumba tey wa mais Cheikh ngeen ne kon yéen fi mu nekk nii roi ba ca Modou ngeen benn bëgg a fàqar ñi a gën a métti mooy duma yi gën a métti Gris Bordeaux liñ ko duma woon moom la ñuy duma Tapha Tine tey tey la Balla di gën a wane boppam ni lamb dekki parce que lamb dafa naroon yàqu ah Balla Gaye heure bu lamb nar a mu sauvé ko le fils de Double Less l'enfant de neex a faral dimanche hmm? bu bëree mu neex bu tuusee mu neex bu daanee mu neex bu ñëwee Guédiawaye mu gën a neex ñun pare nañ de ñun dañoo wow koŋ ñàbb lañ def ñàbb xam nga ñàbb gars yi lan lañ doon wax ay ay Balla bi day la nga ay patati patata loo wow koŋ physique. kon Tapha du leen ëpp doole tey. man lu ma si gën doon gën a gën a gën a neex mooy biir yi na gaa ngi koy joytu mais tey ñu jox tey supporters yi àqu ñu jox leen àqu ticket tey àqu ticket mooy lan xeex ba naaw ba stade bi yëpp jóg yuuxu dóorante laaw tam atloo ñëwaat ñu taxal ko ay kii mu ñëwaat ñun tant que gumbawul tey duñ ko bàyyi. bu gumbawul du ko dóor mu daanu bi nii da ko dégg noonu rek dóor mu daanu mooy dernière chose dañ koy patal ba pare dóor ko daan. ah. Tapha tey buñ tey foog mu dellu reefan. dina dellu waay ñun reefan lañ fanaan. bii. reefan lañ fanaan. yow yaa demoon reefan yow. ana mbër. Balla. ah yow laa koy laaj kay. ma ne la ana mbër. yaa na fi wala yaa a ah? kon. xam nga moo a neex. waaw ku dul tukki doo xam dëkk neexee ñun dañoo tukki. dem ba fekk dëkkam dara neexu fa. ñu génn nit ñi dañu toog pour ñoom Tapha la fekk ñun la ñu ngi ñëw. yéen a ngi ñëw ñu ngi dugg esaat léegi du yàgg dara dara dara bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko taman na laa gën a bëgg mooy mu yàggal làmb ji. maanaam moom nay daw rek bu arbitre ne prip billaay walaay nga xam ne bàllaay jàmbaar. est-ce que nga yaakaar Tapha na teggi tay tànk jëm ginnaaw. Tapha bu teggiwul tànkam moo dóor ko mu daanu. Ah? bu ñu xeexee moo dóor ko mu daanu Tapha amul gàtt. ndax Tapha ne woon na mënuñu xeex ma dóor ko góor dóor ko droite daw jam ko épercule mu génn saako yi am na di seetaan mu ñëwaat ma ne ko naam maa ngi nii natt ko dama ko natt nekkul ay affaire de gis de dama ko natt dama ko ko loxo ba mu yaakaar ne ay mbirum loxo la ma dóor ko corner dóor ko gauche dóor ko droite si ay bool bool yi nag ay nena ci ne ay bool eyeball